asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateurs yi Equivox TV maa ngi leen di nuyu nag dama am gan goo xam ne dafa ñëw seet si ma ñu koy wax Cœur de Lion bu ñu ko waxee moom ñëpp xam nañ ko ci Sénégal wala partout dans le monde muy Balla Diouf Balla Diouf boo xam ne mbër la nekkan si làmb di bëre ku ne xam ko écrit Mermoz parce que ñu bëri lu ñu xamul mooy Balla Mermoz la doore ce ñoom Kamal Zalame lu yàgg laa lay wax ñoom Pouy 2 defe naa ne noonu la demee woon ak ñoom Formane Gueye papa Formane ñoom ñëpp foofu la doore carrière am ñu ne déet ne waaye mu jóge fa dugg Fass dafa fekk na nag li gën a risque ci carrière am Fass la ko defee loolu moom loolu la yàlla dogal ba mujjee écrit yoof yaa ngi dégg jot na faa def sortie waaye ci noonu lañ ko mujjee nag mu gis ko léegi muy encadré ay mbër nekk écrit bu ñuy wax jàmbaar Wrestling Academy Papa Sow nekk tête de ba moom Lato lay Ndiombor ak sukka ñu yore leen di leen tàggat actuellement ci loolu la nekk. kooku mooy Balla Diouf ci loo xam ne nii jot nañ ko xam si moom ci jaar-jaaru làmbam ba tey ji nga xam ne nii yemu ci tamit am na leen loo xam ne hélas boole na ko ci moo yoran tamit këru gardiennage maanaam wàllum sécurité da ci yëngatu te loolu lépp defe naa ne bëgg lu baax la rek tey nag moom laa am fii ci plateau bi mu seet si ma euh, Cœur de Lion maa ngi lay wax ahlan wa sahlan dalal ak jàmm di kontaan vraiment ci ñëw bi nga ñëw tey biir Equivox m vraiment kontaan naa ci trop yàlla xam na ko wax marxaban di nuyu sénégalais yëpp mhm. di nuyu borom kër gi di nuyu mhm. ñi fi nekk ñëpp uh-huh. kontaan trop ci ñëw découvrir kër gi mu ala dawme nii uh-huh. mooy wane ne fii ku fi dugg di nga fi gis professionnalisme di nga fi gis accueil donc loolu yëpp gis nañ ko mhm. vraiment di ñaanal Moussa Seck bu baax fi mu teg loxoom foofu la di ñaan yàlla teg ko loxo teg loxo kër gi ñëpp ba vraiment lépp lu ngeen kiy séentu ci objectif yàlla defal leen ko ci ni mu gën ni mu gën a neexee daal kontaan trop trop trop trop ñëw fi nag kontaan trop ci li nga wax mhm. waaw mu surprendre ma parce que xaw ma woon ni xam nga loolu yëpp mais macha allah quand même dama doon su ma laa doon fekk corniche ba ginnaaw cent mètres waaw loolu dafa yàgg na de waaw waaw bu xaadim jaay ngi ci diggu ndënd ñu bëri faas lañ ma xamee waaw ñu bëri xamuñu ne jaar naa Mermoz. waaw voilà dalee ba. Uh-huh. Fass nag fa sama carrière tàmbalee. bien sûr moom sama combat yi ma bëree yëpp. waaw laa ko bëree. bien sûr benn combat rek laa ci bëree yoof. Uh-huh. donc nag voilà mi ngi noonu sant yàlla parcours boobu mu ngi noonu daal. wax nga parcours bi parcours bi am na solo ah. kon moo lay wan ne moom c'est un grand sportif. yaa ngi dégg euh, boo ko gisee ci jëmm mën nga ko bañ a teg mbër waaye nag. dafay am mbër yoo xam ne mbër la ñuy doon ci deret mbër la ñuy doon ci jikko mbër la ñuy doon ci lépp Balla Diouf loolu la yàlla dogal ci moom parce que dama naan Balla Diouf dafa géy ah bu Papa Sow sa si boole Modou Lo ak yeneen i mbër bëri nañ su leen dee lim du ñu juum da maanaam du ñu jeex ci jëmm duñu doo leen gis ne dañoo ponkal rëy waaye ci biir géew wala ci biir làmb lépp looy wër ci mbër koy fekk ci ñoom moom loolu la yàlla dogal ci moom ah, Balla mm, damay ñëw ak yow rek tey ci loo xam ne nii defe naa ne am na bi mu amee itam coow li bëri na muy làmb joo xam ne mois de août bi defe naa ne affiche yu mag yi nit doon xaar yëpp ci la nekkoon presque. Mhm. ñu xëy a xëy ñu gis ñu ne troisième vague dugg na coronavirus ba làmb ja lépp doxe na fa tàbbi géej dañuy aj combat yi loolu yow nga yore écrit yore Papa Sow ñoom Garga 2 ak yeneen i xale ba ma ñëwee kër foofu fekk naa fa Modou lu mbër yu yëpp ngeen encadré leen di leen entraîné loolu bi mu ñëwee dal seen kaw nu ngeen ko dundee ak yow noo ko yëgee en tant que euh, maanaam koo xam da ngay encadrer ay ay ay sportif waaw du waxaat asalaamaaleykum mhm. eh, di masewu coono ñëpp ñi nga xam ne tey euh, lii dal na seen kaw mhm. donc mu nekk loo xam ne nag lu ñu bett la quoi lu ñu bett bett bett la mhm. ba tax na boo xoo boo ñu xoolee sax ba léegi dafa mel ni génnagul su ñun parce que ñun ay jeunes lañ nekk ci réew mi vraiment jël suñuy ambition yëpp def ko ci suñu sport national mhm. jël suñu temps at suñu énergie yëpp euh, concentré wu ko ci dara mhm. nekk ci benn affaire pendant deux ans mhm. ah, deux ans ñu nekk ci xam nga tey euh, maanaam ngay liggéey te avancé woo ngay liggéey te defoo benn jéego benn jéego vraiment ngay liggéey tamit ñi ñu jiite amuñu ci yow benn yërmande amuñu ci yow benn considération mooy tey ñoom lii yëpp mënoon nañ xam lan la parce que tey def nañ président def na fi tournée économique. alors ah, dam na fi wër Sénégal yëpp. waaw ñëpp màbb ñëpp génn. Hmm. tey amul woon benn distanciation. amul woon benn protection amul woon dara. Hmm. mais ba léegi kenn waxu ci dara. mais tey ñun ñu ngi xam ne ñun la ñu sacrifié ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ndaw nekk ci réew mi gëm suñu dëkk téye sunu esport national. tey mënoon nañ def ni ko ñeneen ñi defee dem di jëlee ay gaal wala di daw di génn ci réew mi parce que ñàkk gëm sa réew weesuwul loolu mhm. ñun nag gëm suñu bopp ak gëm suñu dëkk moo tax ñu toog ci réew mi mhm. ba tax ne tey bu ñu amee ay dirigeants yoo xam ne tey tey lu mel ni pandémie wala feebar bi dafa dal suñu kaw mhm. nekkul lu bees mu nekk deux ans tey bu ñuy wax troisième vague la ñuy wax kon tey romb nañ premier vague romb deuxième vague tey defe naa ne bu ñu àggoon troisième vague ñoom war nañ ci jàngat. ci mhm. premier vague ba. Mhm. ah comment vivre avec le virus. Mhm. ñu ngi fa jógee dem ci deuxième vague bi tirer fa ay leçons. bu ko defee bu troisième vague bi ñëwee. dinañ ci mën a am vraiment ay solution ak ay proposition que ni ñu toog rek jéem jéem a arrêté lépp après ñoom seen ñoom seen ak ñoom ñu ñu arrêté suñuy activité ñoom ñi nga xam ne créé wuñu seen bopp pour jéem a solution pour ñi nga xam ne tey mooy mooy les passionnés de la lutte les passionnés de de de les sports mën a continuer comme ni ko tey euh, Tokyo ni nga ko defee tey. Ah, tey Jeux olympiques mi ngi daw. Mhm. tey yeneen sport mi ngi daw. am na fi tey euh, club yi ñi ngi def ay match amical. bien sûr waaw zone yooyu la gën a méttee. waaw tey ñun suñu zone bi tey war nañu am dirigeant yu nekk à la hauteur dirigeant yu nekk à la hauteur mooy tey mooy tey premier vague jàll na. deuxième vague jàll na tey troisième vague bu ñëwoon tey waroon nañ ci am ay pexe ak ay solution yoo xam ne tey duñ ñëw rek toog ne dañuy arrêté yépp man mënuma gëm ñoo xam ne nag tey seen xam-xam weesuwul lu dul lu xew rek nekkati ni jon ñu ne nañ arrêté lépp. tere daal maanaam. tere tey man li ma li may wax rek chaque jour autorité du ci du ci du ci tur autorité du ci nombal tànk autorité du ci baat. Hmm. autorité mooy ki nga xam ne dafa am xam-xam. n'importe quelle situation dina proposer quelque chose mais autorité yoo xam ne lu xew rek ñu ne nañ arrêté te jël la solution le plus facile mooy arrêté lépp mooy yow li ngay arrêté yow impacté wu la parce que mm. yaa ngi sa bureau climatisé yaa ngi ak say avantage yaa ngi sa salaire mais Balla ñu impacté nañ de parce que dégg naa fi ay autorité yu yu amee pandémie bi yu affaire bi dal ba ci ministre de la justice dégg nañ ngeen di dem ci ay xibaar que ne affaire da ko arrivé mm-hmm. am na yeneen affaire est-ce que bàyyi na kenn bàyyiwul kenn bàyyiwul buur bàyyiwul baadoola. déedéet du dëgg. mais tamit loo xam ne bu amee. Hmm. Eh, te boobu ba léegi nee nañ fii ba deux mille vingt deux deux mille vingt trois wóorul mu jóge fi. mu jóge fi kon dafa mel ni kon fii ba deux mille deux vingt deux deux mille vingt trois. ñun ñoom seen activité dañuy xëy liggéey dem seen yi. waaw loolu moom am seen salaire chaque fois chaque fin du mois dañ koy jot mbër fan lay amee lu mu lekk bu bëreewul. waaw ah, na waar. donc foog ñu xoolaat affaire yi quoi ñu tegaat ko ci yoon ñu xoolaat def ay réflexion xool naka lañ mën a encadrer ak nu ñu mën a accompagner les jeunes yi nga xam ne tey ñoo nekk ci làmb wala nu ñu mën a accompagner sport bi ba mën ko organiser dans les dans les dans dans dans dans les dans dans moyens yi nga xam ne yi nga xam ne tey moo gën a adéquat tey ah, li may wax rek tey promoteurs yi seen bopp. Hmm. tey bu ñu leen accompagner woon accompagnement ba ca war ñoom dinañ am fitu nangu wi kilo bi. waaw promoteur mu dañoo wéet. non dañoo wéet. bu bëggee dëgg dëgg rek waxante dëgg. depuis 2012 la ñu seetlu ni depuis 2012. la ñu seetlu benn affaire. Mhm. que ni sponsor yëpp dañu bàyyi làmb. bien sûr waaw 2012. depuis 2012 waaw boo waaw boo defee jàngat bi waaw. depuis 2012. Mhm. sponsor yëpp moo lay wan ni tey. Mhm. ñu ñu jiite. defuñu benn effort pour làmb dox. waxuma bëgg nañ làmb wala bëgguma làmb mais dañ deful benn mais seetlu bi ma def depuis 2012 la sponsor yëpp daw bàyyi làmb. Gaston il avait très bien compris xaw ma lu xew mu daw génn bàyyi làmb ji dem ci football ba. <laughs> waaw moom de bàyyi woon na moom. bàyyi na fi làmb parce que. waaw gisatu ci boppam. waaw parce que tamit mag buy naan ndox mu tàng. Euh, suukar saa tax saa tax. waaw gisatu ci boppam mu dem ci football ba. Mhm. tey làmb ñu gën ko rese à laad. Mhm. tey am ñu fi nekkoon tey nekk fi di gérer di muñ ak lu boole seen suukar ak seen i daqaar di taqale ba làmb ñëwaat mën a neex. Mhm. tey <clears throat> ba Gaston Mbengue mën a ñëwaat ci làmb. tey ba mën a tey tey nañ seetlu avant Gaston di ñëwaat ci làmb amul benn sponsor buy accompagner. benn bu à part Sénart. Euh, assurance ak sëñ Modou ñàkk ah, sponsoram daal sëñ Modou ñàkk sponsoram. wala Pape Abdou Fall ak ay quelques tuuti mais ba Gaston ñëwaatee ci làmb ji ba léegi. Mhm. dafa mel ni sponsor yëpp dañ leen jox ordre pour ñu topp Gaston. te or que Sénégal làmb ji Sénégal ñoo ko bokk. tey sponsor yi tey ñëpp lañu ñu war a accompagner. mais yaakaaroon na Gaston tamit ci ay pexe moom moo lijjante ba am sponsor boppam. waaw te loolu yëpp mën na nekk. parce que Gaston tamit du promoteur bu ndaw. Gaston du promoteur bu ndaw. te ah, exemple rek man critiqué wu ma mais damay. joxe dégg naa ay connaissance am. waaw ci carnet d'adresse am. voilà ci ay lijjanteem. Mhm. mën na lijjanti loolu yëpp. mais tamit accompagner nañ ko état accompagner na ko. Gaston. Gaston état accompagné na ko. ok du dëgg tey état bi accompagné Gaston. Hmm. noonu la war a accompagner yeneen sénégalais yi donc foofu laa ko mën a waxee. dëgg mhm. tey état bi nga xam ne tey moo accompagné Gaston ba mu ñeme ñëwaat ci làmb mhm. ba mu ñeme tëgg yu neex yi xam ne tey fii ba deux mille vingt deux hmm. non ku seetaan làmb da ngay mhm. tey état boobu nag dafa war a accompagner yeneen sénégalais yi mbër yi ay sénégalais lañ waaw du dëgg dañu war a accompagner te mbër nga xam ne affaire da leen depuis deux ans ñu bloqué amuñu salaire yaakaaruñu dara lu dul làmb mais dañ leen war a dédommager. mënuñoo taaxali ko promoteur yi. mënuñoo taaxali ko promoteur dañ leen war a dédommager parce que koo xam ne préparé nga benn combat trois fois mu avorté à chaque fois nga recommencé à zéro mais à chaque mais nañ nañ waxante. mais damay dégg gars yi naan ñoom affaire bi privé la promoteur mbër est-ce que tamit looloo tax gars yi waxu waxuñu ci waxu dédommagement wu promoteur wala mbër wala gisoo yow privé bi ñu leen di jiiñal. mais nañ waxante dëgg. bu ñu nee làmb dañ ne sport national. national. sunu sport national. jégaanewuñu ko. Uh-huh. léegi sport national mën na nekk privé. ah waaw lu national lu national lu national mën mm-hmm. na nekk privé. loolu ñëpp ko bokk. Eh, promoteurs yi ci dugal seen xaalis si ay sénégalais lañ. ci réew mi la ñuy yeewoo. bien loolu seen fii lañ liggéeyee seen xaalis. Mm-hmm. fan lañ koy defaat du sunu sport national. Mm-hmm. pourquoi ñu naan leen privé. doy na lu tax ñu naan leen privé. privé man li ma xam ci privé mooy ay expatrié privé li ñu xam ci privé mooy ki nga xam ne tey. Mhm. ah lépp luy domaine national nekkoo ci danga dem ubbi sa yëfu bopp. Mhm. làmb du yëfu boppam làmb kenn moomu ko làmb Sénégal ko moom kon mënul nekk privé. nañ arrêté. Mhm. nañ arrêté genre wax yooyu. làmb dañ ko war a jël def ko affaire nationale. nationale jox ko mérite jox ko jox ko respect ba ci war. du dëgg mais tey nañ waxante dëgg ban mérite la sunu làmb ji am. à part promoteur yi nga xam ne tey jàmbaar yi ci nekk tey. di ñàkkante dugal seen xaalis di ko ñàkkante. kenn du ñoom promoteur woon ñoom tey làmb dina am. kon làmb yàqu CNG day tëgg làmb. waaw CNG day état day tëgg làmb. déedéet amul benn démembrement état buy tëgg làmb. ay sénégalais ay commerçant ay boo yi nga xam ne tey. Ah, dañoo gëm seen bopp ay ouvrier ay ouvrier ñooñu ñoo téye làmb ji. waaw ñooñu duñu ay privé. ci dëkk bi lañ dëkk di doxal économie dëkk bi. Mm. kon ñooñu dañu mérité ñu leen di accompagner. te arrêté ñu naan leen privé privé waaw man saa yu ma déggee suñu ministre sport en tant que ministre sport. Mhm. naan bu les promoteurs c'est des privés ça me fait très mal. c'est des jeunes sénégalais ay ouvriers. Mhm. ay gars yu taaba taaba di takkale ay commerçant ay gars yoo xam ne vraiment ci dëkk bi lañ nekk mhm. lu ñu ut ci marché ba ñëw indi ko ci làmb ji mhm. di téye làmb ji at sunu bu ñooñu dañ leen war a accompagner te mhm. tey ça y dañ waxante dëgg nawetaan dañ koy subventionné waaw nawetaan day am nawetaan te vacances lay am ah, ah, vacances xaalis bëri xaalis bëri ci dugg ah, championnat Sénégal duñ ko subventionné eh, équipe nationale duñ ko subventionné lu tax làmb duñ ko subventionné làmb de defe naa amul subvention te ñu ne sport national football ñoo ko moom dañ ko jéegaani basket dañ ko jéegaane. waaw handball dañ ko jéegaane. volleyball ak volleyball ak yëpp dañ ko jéegaane te yooyu yëpp dañuy am subvention te làmb ñoo ko moom. dëgg la amul benn jàppale boole benn accompagnement bu mu am. Mhm. et c'est honte. tey nañ waxante dëgg tey àdduna bi foo dem man tey damay gis ay chaîne tubaab yoo xam ne bitim réew. Mhm. dañuy teg ay sunu làmb ji. di ko ay chaîne tubaab laa la wax. dañuy teg ay ay làmb. di ko seetaan pour sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew. di di ko seetaan ci diaspora bi. Mhm. sénégalais yi nekk ci diaspora bi amuñu dara lu leen téye lu leen liyee ak seen dëkk lu dul làmb lu loolu moom ñun xam nañ ci dara ñun ñu yor micro yi non man lu leer laa lay wax man fu nekk lañ may woowee Brésil Argentine Canada fu nekk États-Unis chaque jour Afrique du Sud ñoom làmb la dund ñoom ñi nekk Sénégal sax ñoo ñu leen gën a dund làmb est-ce que ñu ngi leen di xalaat déedéet mais nañ waxante dëgg metti na daal mais mais mais mais yow fii ci parenthèse fi ma koy tëje mooy euh, yéen préparé woon ngeen ba ba pare pour waroon na bëre dimanche le premier août ñeenti fan xaw ma juróomi fan dox seen digganteeg combat bi mooy Papa Sow Siteu defe naa ne pare woon ngeen lépp affaire bi bi mu ñëwee nu nga maanaam euh, mbër mi nu nu mu ko dundee Papa Sow yéen ñi ko jegeñ. bon franchement ñun boobu ñu ngi entraitement mhm. dañ nekk entraînement. vraiment doon def suñu pratiquement dernière séance su entraitement mhm. donc ba ñu paree def suñuy paramétrage def suñuy calcul. Mhm. def suñu lépp ba tënk. ci lañ ñu woo. Mm-hmm. finalement nañu affaire yi annulé nañ ko. mais je te jure mais boo da ngay mel ni dëj moo am ci écurie bi. ñëpp ne mm. tekk boo gisee mbër yëpp bañ koo yëgee ñëpp dañ toog toog nañ cinq minutes yoo xam ne kenn waxul. te boobu yéen a ngi plein entraînement ñu ngi plein entraînement. cinq minutes ñun ñëpp a toog ci suuf cinq minutes yoo xam ne parce que boobu ñun ba dernière minute xalaatoon nañ ne am nañ ay autorité yoo xam ne vraiment. dinañ régler situation dinañ nekk à la hauteur. dinañ nekk al la hauteur. ah li nga xam ne sénégalais yëpp nga koy xaar ñu def ci tout def ci investir ci sonn ci ba nga xam ne dinañ sauver ne serait-ce que sax ñetti journée yi nga xam ne moom moo doon am. Hmm. après li ci des ñu door a xool parce que mbëri dañoo sonn toog lu yàgg préparé mu yàqu. xam nga Papa Sow depuis premier vague bi. waaw combat am une semaine moo ci desoon waaw vraiment. waaw ñu annulé ko ñu ko bañ ko jàppaatee tamit une semaine ki desaat. ñu annulé ko ba fii nii tamit. ñu annulé ko troisième annulation. mu nekk ñaari at yoo xam ne. mosuñu la dédommagé mosuñu yëkkati dërëm. may préparé nga ñetti combat yoo xam ne ci perte nga ko préparé. may mhm. benn combat nga war a préparé mais préparé nga ci ñetti combat ñu jëm ci ñeenti combat yoo xam ne. Mhm. da nga koy préparé financé sa xaalis dajale sa énergie ñun ñëpp ñu bàyyi suñuy soxla mag ñeeg xale yi ñëpp supporters yi ñëpp ñiy fay seen i t-shirt ñiy def lii ñiy def laa ñiy. organiser wu lépp dépense yëpp génn ba pare yow amoo sax benn yërmande wu xool ni lii nii nii nii nii war na impacte ay milliers milliers millier de jeunes. mais est-ce que du est-ce que tamit boo xoolee ci côté feebar bi li ñu waxee. Mhm. wàllante bi est-ce que du loolu tamit moo tax lii am am. parce que feebar bi mu ngi rey. mais mais sa waay waxante dëgg. waaw feebar bi ñëpp xam nañ ni mi ngi fi mais lan mooy communication pourquoi ñu ko du ñu communiquer ak monde làmb du ñu communiquer ak nit ñi. la mooy tax rek nga xëy du jour au lendemain dépenser ay milliards dépenser ay millions dépenser énergie ñu xëy rek na la du am te waxuñu la benn excuse lu dul pandémie bi pandémie bi am na mais ñoom boobu ba léegi est-ce ñoom ñi ngi génn di communiquer est-ce que ñi ngi génn di sensibiliser est-ce ñi ngi génn di wax ak nit ñi pour ñu gën a organiser est que teg nañ ay ay ay ay ay mécanismes yoo xam ne tey nit ñi dinañ ci jaar ba mën a moytu pandémie bi loolu yëpp amu ñëpp dañu def silence total. dañuy xëy rek génne ay décision te loolu moo loolu la Sénégalais yi. méritéwul sans waxtaan am. sans waxtaan am sans communication am sans sensibilisation am rien mais que des décisions arrêté arrêté arrêté arrêté arrêté kese ba kañ. mais CNG lu ci rôle am. CNG lu ciy rôle am CNG tey moo waroon nekk les devant ak ministre des sports tey di def ay campagne de sensibilisation ci écurie yi dajale président écurie yi dajale mbër yi. ñu sensibiliser leen organiser leen teg ay mécanismes yoo xam ne bu ñu ci jaaree dinañ mën a def suñu sport ma ba ba du am benn problème ni ko ni ko ni ko ni ko FIFA defee ni ko mm. CAF defee ba mën a ba ba compétition internationale yi ak championnat yi mën a am mm. mais ñoom tey loolu moo seen rôle tey CNG dafa war a génn ci ruqam dem ci du dox ci écurie yi teg ay mécanisme teg ay ay idées yoo xam ne ñëpp participer ci président écurie yeeg mbër yëpp joxe ci seen xalaat ñu xool bi ci gën a adéquat ñu teg loolu toog rek na arrêté mais non saa yi dañu waxante dëgg dafa metti tamit. ah waaw na waar loolu am na solo arrêté arrêté arrêté moom bu yàggee ah mën na am la muy jur du dina doy waar mais bon ah comme nañ feebar la. loolu la feebar bi moom mu ngi fi na yàlla def mu jóge fi ak jàmm mais defe naa ne fi mu nekk ti waa bal la résumé na mbir mi ci li mu demee ci li mu méttee ci promoteur yi méttee ko ci mbër yi méttee ko ci ñuy dund làmb te li mu wax si promoteur yi encore une fois dañ koy waxaat promoteur yi ay doomu Sénégal lañ ne fii lañ dëkk di jël seen alal di ko dugal ci làmb ji di ko jox mbër yi ñuy am lu ñu yóbbu seen kër mbër yooyu am na ñu aju seen ginnaaw parce que defe naa affaire bi tey dégg naa Balla Gaye de wax maanaam ku ci ne ci ñoom wax nga Papa Sow wax na ñoom ñëpp ku ne mettitu affaire bi ni mu mettee ci ñoom ñoom ñëpp ñu wax même ñi ñuy wooyee les VIP sax mbir mi daal mais li ci gën a garaaw mooy dañoo jël décision mais ñi nga xam ne sax affaire bi daleen leen dal woowuñu leen sax consolé con xolal leen wala encouragé leen wala sax promettre leen dara dañ leen bàyyi en rade mooy man dañu dañu dañu considérer mbër yi comme duñu ay nit dañu considérer mbër yi comme c'est des gens yoo xam ne soo manipulables donc heure bu leen neex jël ay décisions ils vont suivre te tamit mbër yi lii dañ ci war di def ay jàngat. mbër yi est-ce que amuñu ñëwal dañ ci war a def jàngat parce que tey mbër yi. Hmm. ñàkk gëm seen bopp. at ñàkk di topp ay diw sama xarit la di sibooru ay nit. tey moo leen waral tey mbër yu bëri mënuñu génn wax. mais te tey mbër yi dañoo war a di génn di wax parce que yu mel nii li ñuy teg ci kaw mbër yi lu violence bu am. da ngay gis promoteur bu organiser événement am par exemple événement bu mag. Mhm. di def face à face doo jël benn sécurité. Ah, woo ay mbër woo ñëpp. bu ko defee bu fa coow amee ñu ne mbëri ñu ne mbëri la am na fi de. nañ waxante dëgg. Ah, waaw te loolu yëpp violence bi am ci làmb yëpp li ci ëpp promoteur yee koy indi xam nga lu tax ñoo koy indi. Mm. yow mënoo tëgg ñaari mbër yu am ginnaaw. Mhm. ah di leen woo ci place te jëloo fa sécurité bu mat. organiser woo ko d'une manière bi nga xam ne ñaari mbër ku si nekk mun nga ñëw te doo dajeeg sa morom wala supporter yi problème d'organisation la. lépp dañ koy jël teg ci kaw mbër mi mbër mi ne pat tey décision bu ñuy jël dañ koy jël rek teg ci kaw mbër mi coow doo ji mais pourtant président mbër yi génn na Gris Bordeaux génn na wax de moom. président mbër yi warul génn dafa war a toog at association ñu rey ñëw toog at mbëru Sénégal toog at mbëru Sénégal yi ku nekk mu ñu ñu wax suñu xalaat jox ko liñ koy wax def ko ci mémorandum jox ko ko mu génn door a wax waxal mbër yi. mais moom bu génnee taxaw wax wax boobu moom la engagé. Gris doo kon sortem bi mu def waxut ci turu mbër yi pour yow. non pour man wala waru koon def. non pour man. waaw sorti boobu moom la engagé. mais tey boo nekkee ci ñu jiite la. waaw ah balaa ngay def dara da nga koy wat gaal at yëgoo balaa ngay def dara da ngay dem toog sa bureau mboo mbër yi ñu waxtaanee ku ci nekk nga déglu xalaatam bu ko defee bu buñ ci amee liñ fay yóbbu nga jël loolu téye ko dem représenter association bi dem wax ko fa. du dëgg mais bu dara amee këtt ni jonn rek nga woo presse dem wax kenn xamul ci ban baat nga waxee. kenn xamul ci turu Gris Bordeaux nga waxee wala ci turu association nga waxee donc loolu tamit day xaw a lëndëm ci xalu sénégalais yi. Mhm. du dëgg. Mhm. tey boo jiitee ab kuréel tey lu mënti xew kuréel ba ñoo koy waxtaane yónni la ca yow parce que yow dañ la jiite da nga jiite dañ la ca yónni mais li mu li mu wax dëgg la metti na neexul parce que tey. sénégalais la comme ñëpp mbër la comme ñëpp. Hmm. xëy na tey ba affaire bi amee ni mu ma méttee noonu la ko noonu la noonu la ko méttee noonu la méttee keneen mu dem jël jël ay dispositions en tant que président de l' association des lutteurs mais li ci gën a wóor mooy wat gaal ak yëgoo. wat gaal léegi gis naa ci wat gaal ak yëgoo boobu gis naa benn mbër dem ci sunu làmb mu génn guy gi nee na mbër yu mag yi boo xoolee ñoom parce que seeni intérêt rek la ñuy défendre quoi. moom laa lay wax du ñu ah. waxal mbër yu maanaam mbër yi gën a féete suuf làmb monde làmb ñëpp mel noonu ku ci sa intérêt menacé wul rek patt ngay def te c'est dangereux parce que ñi ngi sacrifier ñeneen ñi surtout yow yàlla bu la yàlla booleeg say naataangoo ci biir làmb yàlla wërsëgal la ci nga am foo ci toll am fu ñu la ciy xool yenn situation yi ñoo dañu war di organiser wu parce que yeneen mbër yi ndaw yi nekk seen ginnaaw ci ñoom la ñuy roy du dëgg si la ñu war a organiser wu vraiment euh, taxawaay taxawaay boo xam ne tey bu ñu fi jógee ñeneen ñi màgg bu ñu fi nekkee tamit taxawaay yooyu la ñuy roy dafa am ay teg taxawaay yoo xam ne c'est exemplaire. Hmm. tey tey même mbër bu ñu daggul xaalisam sax du kaas. parce que tey mbër boo si gis am na xaritu ministre wala député am na xaritu directeur wala leneen ak leneen donc dangay bañ a wax ñu ne non après diw du ma jàppale lan mooy loolu yàlla moo fi nekk. xaritu directeur ak ministre yooyu yëpp neex na mais bu dëgg joxee ku leen xàq wala kaana muran bu dëgg jotee. dañ ko wax na nga ca taxaw taxawaay bu am solo ndax tey. Euh, ñoom la yàlla dimbali ñu nekk ci kanam mais seen taxawaay dooy na waar de kuñ ci laalul rek doo yuuxu. Hmm. mbër bu mel ni Siteu de moom xam naa ne moom moom gis naa ne moom sama seetlu te Sénégal Sénégalais yu bëri seetlu nañ ko moom dañ koy gis moom day wax li ne ci moom. non Siteu. Siteu Siteu du du du léegi sax loolu ah. yàgg na koy wax. Siteu moom yàgg na wax na autorité yi di geesu xale yi. yàgg na ko wax yàgg na. genre mbëri waaw gi comme Siteu. Ah, vraiment moom mhm. ñi nekk ci ginnaaw moom xam na. Mhm. xam na tamit li muy wax chaque jour da koy wax chaque jour chaque jour. Mhm. am na am na beneen mbër tamit ku ku ci mel ni vraiment nu mu tudd sax euh, Kona. Kona waaw. waaw Kona wax nga ci mel ni Kona. Kona tey Kona. wax nga dëgg Kona ku nit la koo xam ne lu bëri bëri moo. ko parce que il est éveillé papa que day gëstu. voilà du dëgg. tey mbër yi foofu lañ toll. mbër dañu war a toll weesu promoteur diw sama xarit la. xaaral du ma wax ni wala ministre diw sama xarit la dañu war a weesu loolu parce que ah. ñoom ministre yooyu tey bu ñuy taxaw di dóor ci kaw mbër yi ah. du ñu xool seen i xarit du ñu xool kenn ci kaw mbër yi la ñuy dóor du dëgg hmm. kon tey mbëri yi tey war nañu am benn organisation boo xam ne am beneen xar kanam boo xam ne tey war nañ ko taxawee ci Sénégal ndax te tey Sénégal naa la wax dara de hmm. tey ni ñu jiite dañ ñu teg bët ah. teg bët parce que tey ma bu ñuy jiitee xam nga tey boo dégloo tey Euh, mos naa dégg benn anecdote suñu président di ko wax Macky Sall. Mhm. mu ne bu njëkk euh, xale yu jigéen ñi étudiants yi lañ doon bëgg. waaw ak médecins yi ak ingénieurs yi. léegi nag koo wax mu ne la mbër la bëgg. loolu xeetu teg bët la. kon ñoom ñëpp dañ ñu teg bët kon mbëri nag war nañu xam seen bopp. war nañ xamaat seen xam ñu ñu doon. xam ñu ñu doon. waaw at nu ñu toll ci réew mi. waaw at paix sociale bi ñu indi ci réew mi. ak mm. contribution bi ñuy contribuer ci économie réew mi. réew mi dañ ko war a xam ba pare di ko doxee. thank you